site bi kon maa ngi fi commencé investir 2018 euh, 2019 jot naa fi def nag euh, lu yées tuuti rek cent million donc euh, ginnaaw ba ma gisee ki nga xam ne si moom mooy kilifa gi laaj ko ndax situation situation site bi nekk na en règle mu pro effectivement donc mu wax ma ni lépp nekk na en règle ba ma jot ci am quelques papiers bu am nikaat ñu wan ma fi ñu may jaay léegi au moment bi ñu may jaay j'étais même hors du Sénégal ñu jaay ma en dehors de l'assiette et il s'est trouvé que foofu c'est sur le 8M donc bi ma toppee si kayit yi daw ba sonn après j'ai pu comprendre que ni euh, fi ñu ma jaay c'était pas en en en règle de toute façon rien n'est mais am na site boo xam ne jàpp nañ ni bu yàggul dara dana nekk en règle mooy lotissement lotissement bi Thiawoune Bambara ça fait environ 245 hectares boo xam ne si am na avis yu bari donc loolu lépp dinañ si dikkaat nag parce que comme que autorités yi nga xam ne si ñoo def loolu noonu xëy na ñoo ko tey xëy na teyuñu ko xaw ma si dara nangu nañ ni jum nañu te dinañ ma recaser feneen donc man damay xaar ba fi ñu ma euh, fas yéene recaser mu ngi nekk si route de Morolan bi am na autorisation de lotir site bu baax la bu nekk en règle la comme ça bu ko defee man tamit ma àndandoo fa ak sama ay partenaire ñu ñu dem foofu waaw boobu bokk na si voilà ñaata ñaata hectare lañ la jaayoon fii waaw liñ ma liñ ma jaay nag war na mat ay 450 parcelles pour ne pas parler d'hectares mais 450 parcelles donc bi ñuy dindi tamit gis naa ne bi ñu leen ko waxee dem nañ dindi sama ay borne affaire yooyu noonu j'étais tout à fait d'accord parce que si bu nekkul en règle je suis allée porter plainte auprès de la DSCOS je suis dama d'accord ci li DSCOS DSCOS def parce que dindi borne moo gën a yomb dindi ay kër donc lu nekkul en règle teel ko dindi nit ñi bañ cee moo gën ñu bàyyi baskan bi yëpp loru suñu soog koo def entre et 2019 j'ai eu investir euh, environ millions sur ce site après que je me suis présentée auprès effectivement, donc pour voir si le site était en règle. Donc il m'a effectivement euh, rassuré que le site était en règle et m'avait même euh, présenté des documents une assiette qui, pour le moment, n'est même pas encore en règle, mais est en bonne voie de régularisation. Maintenant, j'ai pu visiter on m'a montré, mais au moment de céder les parcelles, on m'a cédé sur, euh, euh, en, dehors de l'assiette. Donc c'est un problème. Et voilà, après que j'ai fait mes enquêtes et que j'ai vu que j'ai été casée sur, euh, sur, sur, un espace qui était le 8e, automatiquement je suis allée porter plainte auprès de la DESCOS donc, euh, pour, que la, pour, pour, que justice soit faite. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, se sont, euh, qui, qui sont concernées par ce problème-là, mais puisque l'autorité lui-même m'a appelé, et puis les autorités et les personnes concernées pour me recaser sur un site qui est en, en norme, euh, qui a une autorisation du ministre de, de l'Urbanisme, Là, donc, euh, je suis un peu rassurée pour le moment, mais je ne baisse pas le combat. De toute façon, je vais entrer plus en détail après la Tabaski. Maintenant, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, là, je vais entrer plus en détail sur les problèmes qui sévissent sur ce site-là.